salaamaaleykum mbokk internet TV ñoo ngi ta wax uh, Ibrahima Ndiaye Obali ñu koy wax Obali Obali bi fan la jógee dañ ma koy rek lay tuddee si biir géew bi Obali bi si gars yi nga rek yaa ma gën waa mun a nelaw rek <laughs> da nga doon nelaw saa yu nelaw rek mhm. di Obali waaw ki la tuddee nu mu bu tudd daam maçon nga quoi maçon la dama ko doon fréquenté waaw may toog moom di nelaw bu bëri mu mujjee maa tuddee noonu waaw foofu la tur bi jógee. foofu la tur moom làmb. ma dugal moom làmb di wax gars yi nag ñu waajal sama combat bi man ak ngeer bu sab Jackson moo ko tëgg. incha waaw incha allahu rabi après koor gi xam naa ngay doon. après koor rabi. mais ngeer rek war a. non ngeer sama grand ga. sa grand la baax na di ñaan yàlla suturaalu rek may ñu dam si barke Seydina Mohamed. mais ñu bëri na comme ponkal gi ñeme wuñu maa jël ah. ngeer fippu rek waa ngeer fi bu rek après incha allah waaw waaw waaw waaw non non ngeer mayewu yoon de ngeer toogagu fu ah. fu muy maye. waaw ngeer toogagu mun na ma kay. si naka. si do déedéet du ma ko may tàng de duñ maye dara. déedéet duñ maye dara. déedéet amatul grand. si ponkal laa teg sama man produit it frappe avec frappe ga dañoo amul nu ñuy def rek moo tax ñu ne si mbapat bi nii waaw di wax ponkal gi nag buñ jógee si ngeer na ah. gars yi yëpp ñëw ah. ñun soxlaa gu ñu xaagi si làmb li ñu nar a fay nañ ko doogee mbër yi ñu war a ah. waaw li ñu war a téye kanam xam nañ ko waaw incha allah ñan ñoo nekk sa yoon tey boo doon ñan mbër tey ñoo war a sa yoon waaw man de instant bii nii moom tey tey tey tey sañoon damay bombardier bombardier waaw li nekk suma xol laa wax waaw mais nag euh, wàññi boo gis si benn ngay commencé yàlla baax na ndànk-ndànk rek incha allah. après ñëpp ku ma am baax na man ragaluma kenn. ponkal yi ne si kaw yëpp. Ah. man ñooñu nga bokk ëpp ñu ma doole ëpp ñu ma gabari. Ah. gënuñu maa yor bi mbër. ëpp ñu ma ginnaaw. waaw kon kon kon kon xam nga rek mooy loolu. mais balaa nga àgg si bombardier su la waxee Gris 2 nag. Gris baax na xaaral bu ma génn si ngeer Gris 2 bu ma génnee si ngeer kay Gris fu mu fu naa ko fek ba biir këram mbaaw. waaye combat yooyu dara da koo dàq. dara ah. dàq ko combat yu neex ngay wax ni combat yu neex combat yu allah rabi. nañ ñaan Cobra 2. baax na ñoo ñëpp baax na. yow da nga xam sama affaire ay soko sib. Ah. waaw. ndeysaan. waaw oh la la la la waxee góor a sokk nag. déedéet góor a sama grand ga ñoo bokk parcelle. yéen a bokk waaw góor a ñoo bokk parcelle. waaw góor ñoo duñu laale. góor a laale quoi Alioune Seye 2 no Seydou sama waay nga. Seydou mais ah, ñaar ñooñu noonu samay waay nga. yow à part ñaar ñooñu. ñëpp kaay bëri. jërëjëf ba ba temps yii